la ndaw si waxoon ci bërëb ba kale ba cour suprême Mariam Diop Gueye dëgg ba mu fa waxoon ne jaay doole la ñu bëgg a teg Ousmane et que li ñuy def yëpp teguñu ko ci yoon que yëfu woyu yi ñuy def dañ koo war a arrêté et que ñu bàyyi Ousmane comme tous les citoyens mu retiré fiche am dégg nga mun a participer ci parrainage yi loolu la kii firndeel tey mais kii dafa gën a sori dafa nekk lii état bi def wéeru ko fenn tegu ko ci xam-xam tegu ko ci dëgg kon boog nañu dindaat Ousmane niñ ko dindee faase ko nañ ko ci delloowaat ci ni mu gën a gaawee te bu ñu jëlee ci benn du ñu jël benn mesure boo xam ne mun na tere Ousmane nekk ci liste yi te Ousmane bu nekkee ci liste yi day wane que ne Ousmane dégg nga candidat la à la candidature Ousmane Sonko dafa war a commencer ay parrainage am te it war a déposer candidature te loolu nag loolu moom mooy yoon dégg nga lii ñuy def yëpp maanaam ci xeetu noot la wante Sénégal yi yeewu nañu kenn du nangu ñu noot ñu te kenn it du nangu ñi nga xam ne dañoo jeexal ñu doon ay xong faaf dégg nga bëgg fee toog abada dayi man